وفي سفر هماني هلا ماهن ما الأبس والسفر صلاة الذي في كل سار وفي سفر هماني ألا ماهن ما الأبس والسفر صلاة الذي في كل سار وفي سفر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 ci la waxee ne abi mën wanahu abihi rawdatuhu munawara munawara nag mu ngi nii kon leer gi fi sëriñ bi wax leer gi nag lu waay doon def na nga fexee di ñëw ci leer gi di siyaare Mamour Anta sale ndax poroxaan moom mii moo ko sanc ba Ahmadou Ba tafsir ma ba joxu wootee jihaat ca Saalum te mag ñu bari dem maam ay sa yu yebal doomam jii Maamur Anta Sali mu teewali ko fa ànd ak waa këram ñoom soxna Anta Njaay Mbàkke ngi tëdd fii ak lalub rasulillahi moom it waaw lal baa ngu lal baa ngi tëdd mu ngi tëdd ak lal bi fii fii ci barab bi moom lañ dencewaale ak lal ba ci ndigalu Sëriñ Tuubaa moom itamit sën sëriñ bi ci boppam moo fay bor bi ndax ku ñàkk ki ñaana a ngi moom soxna Anta Ndiaye waaye moo jëli maam jaara busu nag waaye xam nga lu mu bokk ak maam jaara itam maam Anta yaay la ci maam jaara moog maam asowaaloo bokk seen bàyyee bokk benn baay ak Mamour Anta Sali nii moo tax soxna Anta Ndiaye Mbàkke am sañ-sañu dem jëli maam jaara andi ndax doomama moo tax bi mu ñëwee dafa génn néeg ba mu nekkoon daal di ko koy jox maam Anta Ndiaye am na loo xam ne ba léegi nit ñi duñ ko siwal wala xamuñu ko waaye dañoo war a feeñal mbiram jigéen ñi di si roy di di si jëriñoo bu baax ndax maam Anta Ndiaye maam xaalima jaxate kala andee na rakkam bu ñu ku ñuy wax soxna ab sa jaxatee ci Maamor Anta Sali fekk na mu am ñeenti soxna. ba mu ko ko waxee Mamour Anta ne ko maam xaali kàng fóori nga xam nga lii lislaam wax alxuraan dane mas naa wa sulaasa wa rubaaha ñeent yow soxna si dégg loolu mbir mi yéeme waaye xolal la soxna Anta Njaay def ci gàttal soxna Anta Njaay daa bàyyi ba yëf yi am dal mu yëglu sëñ Mamour ne ko bisimilah. soxna Anta Ndiaye daal di agsi wéet sëñ maam Mor Anta Sali ndax ñoom ñaar yi ba tey ay doomu bàyyi leen maam Ibrahima Mbacke Awa Niang moo jur maam maam Anta Ndiaye maam Balla Aysa jur maam Mor Anta Sali te maam Maaram Mbacke mooy waajur maam maam Balla Aysa di waajur sëriñ Ibrahima Mbacke Awa Niang ah nii la demee léegi nag maam Anta Ndiaye xamal sëñ maam Mor ne ko Balla damaa ñëwoon waxtaan. ndax yéene innamal ahmaalu binniyaati fa innama li kulli imrihi ma nawa yéene ji maam xaali am ci rakkam ji soxna ab sa jaxate ñeent fi ne waaye man dama bëggoon ñu waxtaan man fa ma nekk man fa ma ne man fa ma toog ne fa muy aawo maanaam man dañuy yéewee ko moom mu ñëw toog man sama place man ma wuuf njaboot gi ci sutura mu nekk sutura maag yow ak yàlla noonu la soxna Anta Ndiaye Mbacke fexe ba sëñ Maamoor nangul ko ko soxna am sa jaxati dugg si am fi diir ca la am leer googee ñuy wax Serigne Cheikh Absa Mbacke wallaahi ndeysaan Serigne Cheikh sa Mbacke moomu Maamoor Anta sa leen ko tuddee benn xaritu wàlliwu gànnaar sëñ Sidil Muxtaar Kunti alkunti la ko tuddee ab diir lan la Mamour Sall tudd tudd ko rek daal di wàccu liggéey sax ci moom itamit soxna si moom it ab diir moom soxna ab sa jaxate ci la wàccu liggéey. xam nga mi ngi fii. moom itamit mi ngi fii tëdd moom soxna ab sa mi ngi fii tëdd ci la soxna Anta Ndiaye Mbacke dellu dellusiwaat. daal di ne fi mu ne Mbàkke sëriñ euh, soxna Absa gis nga ko jël na si la jël na cëram dem mu mu dellu toogaat moom soxna Anta Ndiaye mbaa xam ngeen ne soxna Anta Ndiaye Mbàkke moom itamit nii nii nii la def ba soxna Fatou Issa Diop ñëw xam ngeen maam jaara bu sax soxna Fatou Issa lu ñu bokk ah ba tey foofu it mag ak rakkal lañ maam Fatou Issa Diop may waajur borom daarul moxti soxna Absa Mbàkke mooy waajuram soxna ab sa Mbàkke sëriñ Seex Ahma sëriñ Ahmadu bu sa Mbàkke mooy waajuram soxna ab sa Mbàkke ak maam maam astawaalo ñoo bokk benn waajur wu góor maam jaara bu sa soxna Faati Isa ay doomu gis nga kon Maamur Anta Sali ñaari jarbaatam la yoroon waaye soxna Anta Njaay Mbàkke ñaari doomam ba tey gis nga ñoo ko fekk si woon ci kër gi mu nekk loo xam ne ni nu roy loolu ñoo ngi nag fu yéeme fii nag jullit bu ne jullit bu ne képp koo xamante ne jullit nga rek ku dul jullit sax ñëwal rawatina ngay jullit ndax Maamoor Anta Sali Mbàkke lim defal senegaal moo tax te fii mu tëdd ku fi ñëw sa aajo faju ku fi munti ka ñëw rek wallaahi sa ajo faju na. sëñ Mohamed xam naa li ñuy li ñuy tëjee euh, laaj bi rek moo. waaw li ñuy li ñuy tëjee waxtaan wi rek waxtaan bu am solo lool moom dégg nañ fi loo xam ne moom wax dëgg la dëgg yàlla tey lañ ko mës a dégg fii. Euh, li ñuy tëjee waxtaan wi rek mooy projet bi nga xam ne sëñ Fallou Mbacké mu sëñ Moutalla am na ko fii ci barab bi ak xam naa sax fii ci dëkk bi ndax xam naa ne am na fi kër. ci dana fi taxaw lu bari projet boobu rek lañ bëggoon nga nga dikkal ñu ci bu ko defee murid yi xam ko mën a ñëw it ñoom ku ci ku ci dox ci infaax rek mën a ñëw tabal sa sa sa sa sa sa yéene wala sa man-man ci ci projet boobu. jërëjëf sang bi kaddu gi may bëgg a wax nag kon daa mel ni sëriñ bi la ma doon yéene doon wax ne. ak maa neexoon ma wax ba àdduna di di di ma seetaan di ma dégg kon daa mel ne moom yebal na ko ñëw na ndax yow kat la ma bëggoon a wax far lool nga bëgg a wax lii nag su ma sañoon RTS dangeen ko teg. télé yëpp dañ ko teg li may bëgg a wax ndax loolu yàgg naa ko bëgg doon bëgg doon doon ko mébét. doon ko di ko wax ba yàlla andi ko kon nag yéen loolu seen liggéey la. ku ko defal sëriñ Touba Serigne Touba moo lay fay. kon nag bu leen ko sàggane sang bi sëriñ fallu Mbacké doomu Cheikh Mouhamadul Mourtada Mbacké ngi noonu nekk jàmbaari lislaam donn waa maamam ya donn waajuram fii ba mu fii nekk Cheikh Mouhamadul Mourtada di ko fi dëgal dara dara amu fi Serigne fallu Mbacké daj fil coono bu ne waajuram yëpp doon nañ ko fekk lu ko dalee Cheikh Abdoulaat Mbacké Serigne Abdoul Khadir Mbacké ba si Cheikh Amadou Mourtada ak mboolem ñu mu bokkal Sëñ Tuubaa ñëpp ñëw nañ fi si Abdoulaye Mbakke muur de armée li deqale yii sëñ Abdul Xaadir Mbakke daawul jóg fii ab bés sëriñ Fàllu Mbakke daa di moom Cheikh Amadou Mourtada daa di ne sama baay Cheikh Cheikh Abdoulaye Mbakke fekk na ma deqale fekk mu metti lool ndox daanaka amul. yii ngay gis fii yëpp nag moom xaarul kenn lépp lu mën ak lu mënul lépp moom mu ngi koy def xam ngeen ne gis ngeen liggéeyu barab bi des na sëriñ Fallou Mbacke taxawal na këru Mamour Anta Sali Mbacke sëriñ Fallou Mbacke mu ngi fi bëgg da taxawal daaray alxuraan ji sëriñ Fallou Mbacke gis ngeen dëkk bi tali soxla nañ ko courant bi bëgg nañ mu yokku Serigne Fallou ba gën a forage bu mag fii ci dëkk bi yooyu yëpp ñi mu bokkal nag lislaam rawatina ñi mu bokkal Serigne Touba maam maaram moom mi ngi woo ñépp ku ñëw nag ku fi lu fi waay def ci loxo Serigne Touba nga ko def fii lu fi def ci loxo Serigne Touba nga ko def. sëriñ Fallou mbakki moom da leen fee nekkal rek waaye ñëpp la bokkal Mamour Anta Sali Mbacke waaye ku xool deqale xam ne ne tey na Poroxaan war a mel mel Touba mel ko Mbacke Kajoor mel ko Daarul Muxti mel ko ak fépp fu sëriñ Touba jaar deqale da ko war a mel ndax buñ ne ku tëdd fii ñu ne ma waajuru Serigne Touba te sëriñ tubaa lépp lu mu am Mamour Anta sale ma borom Daaru Muxti lu mu am Mamour Anta Sallé maam Cheikh Anta Mbacke lu mu am rek Mamour Anta Sallé la Serigne Massamba Mbacke lu mu am rek Mamour Anta Sallé la kon ak fuleer gi mën a jógee ba nga sanc dëkk mu mel na mu mel ma ne dellool njukkal Mamour Anta Sallé kon nag sëriñ fallu Mbacke jàmbaar la waaye mi ngi tàllal loxo nag. moom nag wax dëgg yàlla gaynde la xaarul kenn lu mu am daal mu ngi koy def ci dëkk bu tedd bii dëkku maamam bii te moom rek du moom rek mooy sëtu Mamour Anta Sali ñi mu bokkal Mamour Anta Sali Mbakke ñu ngi fi taalibe yi wallaahi wallaahi ñi ngi jël nag seeni ñaq di ko dugal foo xam ne dugal ko ci Mamour Anta moo gën. ndax jamono ji da ngay jël sa alal di ko dugal foo xam dugal ko ci Mamour Anta Sali fii muy gën ndax nee naa leen kër Mamour Anta Sali gaa nga ne ñu ngi koy tàmbalee door ku bëgg a liggéeyal sëñ Tuubaa kay tee ngaa koo xaar ci waajuram boo ñëwee barab bi gis ngeen liggéey bi ku fi tuur sa ñaq ci loxo sëñ Tuubaa nga ko teg. sëñ Fallou Mbacké mi ngi bëgg comme nañu bëgg daaray maam jaara ca Poroxaan sëñ sëñ baa ngi koy naal daaray Mamour Anta Sali Mbacké la fas yéene taxawal fii te loolu yëpp ñi mu bokkal maam maaram ñi mu bokkal lislaam lay tàllal loxo ndax sëñ Abdul Xaadir Mbacké dafa wax ne jàmbaar amul ku yàlla dimbalee rek a fi ne ku ñu dimbalee rek moo fi ne kon nag ku ñëw xool dëkk bi sëriñ bi moom gis ngeen ko lu mu am rek nag moom xaarul kenn de lu mu am rek moom mu ngi fi wéet nag wéet fi tundung waaw waaye na ko waajuram ya waxoon rek kon nag mi ngi noonu ah lii nag ah na ko jullit yépp dégg na ko mboolem murit yëpp dégg ne ne day wax dëgg yàlla deqale moom neex naa xam ku xamul fu deqale ne soo jógee tuubaa dangay ngay jaar daarul moxti wàcca Fass Touré topp ranran bi waaye boo jógee dakaar jaar Tiwaawoon boo ñëwee ba Ngaay da ngay jadd ci sa ndeyjoor jaar Pekes boo ñëwee ba Cëlmax am na tableau bu lay won deqale nga daal di ñëw kon ñi nga xam xamuñu fu deqale ne waaye ku bëgg liggéeyal Sëñ Tuubaa jamono jii Sëñ Tuubaa gis la gërëm la da nga jël sa ñaq nag ñëw ci waajuram Maamoor Anta Sali Mbàkke mi nga xam ne sëriñ Tuubaa ne ku ne fi jàng da ma fi fekk daal di ne wa mun abihi war a waaye soxna Anta Njaay Mbàkke ma jëli maam jaara bu sa indikoo mi ngi fii tëdd kon nag wax dëgg yàlla dëgg dëgg nag fii fii rek a jara def fii rek a jara ñëw fii rek a jara jël sa ñaq def fi wasalaamaaleykum wa rahmatullah waaw dama bëggoon rek xamul xamal xamal mbokk yi ñu seetaan ne suñ seen bi mi ngi tudd Khidma 28 TV euh, yitteem yëpp nag mooy dox ci jaar jaaru sëriñ bi fépp foo xam ne xam nañ ne sëñ bi teg na fa tànk ñu dem fa siyaare ko waaye wan ko mbokk jullit yi ndax sëriñ Touba ci boppam moo wax ne bu nit ñi xamoon euh, mbóot ya ma def ci fa ma julli ak fa ma jaar danañ bàyyi seen yitt yëpp ñëw siyaare ko loolu nag la yéene jullit yi waaye nag weneen liggéey mooy fépp fu ñu dem ca sëñ bi jaar fa ca barab ba war melul na mu war a mel wala dëkk ba sax am ay soxla ba nit ñi ba mën fa jaar soxla yooyu ñu ñu ñu ñu wax ko bu ko defee ñëpp dégg ko ku ci mën a indi sa barkeelu ak sa liggéey nga daal di koy def Khidma 28 TV loolu mooy taxawaayam ñu bëgg na nga ñaan ci mu doon seen bu barkeel boo xam ne ñëpp danañ ko dégg. jërëjëf euh, macha allah ndax yéen moom daara ji ni ngeen ko tuddee dafa am solo Khidma euh, Serigne Touba sax wax na ko te maam Cheikh Ibrahima Fall wax na Khidma Khidma nag mooy liggéeyal yàlla. kon maanaam euh, muy tele bi euh, maanaam xidma bi nga xamante ne si ni tuddal ngeen tuddee ngeen ko ko yàlla yàlla naatal te yàlla yàlla barkeel te fépp fa ngeen ci bëgg yegg yàlla yeggale leen faa euh, wax dëgg yàlla fi ngeen teg seen tànk nag foofu rek la ndax lii moom sawar naa ci lool te lii lii rek am solo ndax wax la jara wax dara gënu koo neex mooy wax jii nag waaye film la jar a film eh, lii rek nag mooy film ndax mbir la moo xam ne jihaad la ndax lii am na jullit boo xam ne ne moom liggéeyal yàlla rek ko ñor lu baax rek ko ñor te yugu ko waaye suy gisee lii dana xam ne ne nag foofa moom yàlla yàllaa nga fa xaaral man ma dem defar defar fa yàlla te jamono jii la Seex Amadul Murtadaa Mbakke waxoon de addina ak alaaxira dañoo jege dañoo jege wante loolu daal. ku am xel ku ne nag na na waajal boppam ëllëg lu ko fay jariñ te lu ko fay jariñ nag mooy ku bëgg liggéeyal yàlla am ngërëmal yàlla barabu Mamour Anta Sali Mbàkke baa ngi nii deq la ngi nii te wax naa leen ko sëriñ bi moom moo ko waxal boppam gis nga fii ku fi def sa ñaq dangay raw ba faw comme boo fi ñëwee rek teg fi sa tànk tàllal fi yàlla loxo ñaan loo fi ñaan rek. yàlla subhaanahu wa taala dala koy jox ndax fii lool it na ko ñëpp xamee noonu barewu fépp fu waay am soxla te nga bëgg sa ajo faju billaay la si laa ilaaha illaa ñëwal fii booy ñëw fii booy dugg ci barab bi loo fi fas rek sa ajo faju loo fi fas rek sa ajo fajo kon nag ñu ngi leen di ñaanal bu baax eh, di leen ñaanal bu baax fépp fu ngeen bëgg yegg yàlla leen fa yàlla yeggalee eh, ci barke Serigne Touba di ñaanal xalifatul am li tarixatil muridiya ma Cheikh Mamadou taxa jàmbaar ñëw na fi sa ñëw na fi di ñaanal itam sëriñ Abbas Mbacke xalifa Daaru Muxti bi nelaw hmm. ku bëggoon Mamour Anta Sali di ñaanal xalifa bi fi toog sëñ Bass Anta Ñang di ñaanal xalifa sénéro yépp hmm. lu ko dale xalifa maam Cheikh Anta hmm. ak sëriñ Massamba Mbacke xalifa yépp rek ñoo ñoo xam ne soqeeku nañ ci maam maaram waaye xalifa waa seex yeeg ak Sénégal ñëpp kenn ku si ne ndax lu baax lislaam la lislaam moom lislaam la képp ku dégg loolu te bëgg a liggéeyal yàlla danga yónnee sa ñax ndax wax dëgg yàlla armeel yaa ngi nii miir bi itam dañ koo war a miire te gis ngeen miir bi jamonoy Cheikh Abdou ba léegi gis ngeen ko keroog bi Cheikh Abdou Lahad Mbacké nekk xalifa Serigne Touba yëf yi yegg ñëw na ñaanal mbooloo mi daal di ne Touba ngi nii moom Cheikh Abdoul Ahad Mbacké tund wi sax ku fi wàccub liggéey bu leen ko yóbbu Touba denc leen ko fii fii Touba la kon gis ngeen liñ fi war a def bari na liñ fi war a def bari na dama ne liñ fi war a def bari na yow fenn fu ne yaa ngi fay tuur sa ñaq waaye léegi waajuru sëñ Touba nag sëñ Tuubaa sant Mbàkke kuy waajuram Maamor Anta Sali la kii moo waral maam jaara téye sakke doo fanaanee tawte kii moo waraloon maam jaara Buso dugg sib teen kii nag wax dëgg yàlla dëgg dëgg nag moo liggéeyal yàlla nag ba yàlla faye ko sëriñ Tuubaa waaw Maamor Anta Sali duñ ko delloo njukkal wasalaamaaleykum wa rahmatullah